jubbanti moom ak jubal lu am solo la. waaye nag te moom la sénégalais yëpp di ñaan waaye bu ñu fàtte mukk tamit ni euh, dañu nekk ci dëkk boo xam ni c'est un pays pauvre dañu nekk ci dëkk boo xam ni aussi ñu baari ci askan bi euh, sutura rek nañuy doxee. sëriñ nag sa gars yi dañoo nay de. waaw waaw sutura rek nañuy doxee. <laughs> sa gars yi dégg naa. non non gars yi gars yi. xam ne. <laughs> waaw <laughs> waaw loxo bi daggee waaw pourtant nag. pourtant sax man jàpp naa sax du nay mais. Euh, peut-être que euh, bañ a jaxase ay affaire cest à que euh, il s'agit pas de wàcc sa ànd parce que yoon bi nga woote mooy jub jubal jubbanti. waaw d'accord voilà léegi loolu mën nga koo def cela ne veut pas dire couper. Mmh. à toute forme de solidarité. parce que xam nga. sénégalais booy xool ba ci biir euh, lii baax ci moom. Mm-hmm. desu ko togg ci cin. sénégalais dëgg-dëgg. Mm-hmm. maanaam euh, nit ku fonk ay valeur la. Mm-hmm. bokk na ci ay valeur yooyu sutura. sénégalais mën nay toog fii di dee mais du la ko wan. yow kañ yaay xam. ñëw fekk ko ci mhm. c'est-à-dire que ce que ce que j'appelle les questions de dignité ah les d'honorabilité euh, yooyu dafa seey ci sénégalais yi mhm. comprendre nit dina ñëw ci yow xaw la nduru ku ñàkkul dara fekk boo ko boo ko xuuxalee sax mu dee sac bi très bien sac mhm. sénégalais peuple boobu la moo tax ma naan la lii lii baax ci ñoom de su ko togg ci cin mooy sénégalais mooy askan boo xam ne Euh, bu la neexee yokkal ceeb. Mhm. dana ko kaas nii rek mais après day toog continuer waye mhm. yokkal diw ñam bi carotte supame yokkal lépp dana ko kaas mais du ko jaral àgg ak yow kaakoo jee mhm. mais nga laal lu toll ni tarafatal ay ni ci dignité am ci ngëm-ngëmam ak mm. pas-pasam mm. mu jaay la bakkanam est-ce nga waaw peuple boobu ay valeurs immatérielles mooy yi ngay wax noonu dafa am solo ba nga xam ne yow miy njiit yow des fois yaa war di comprendre loolu. ah waaw di leen yow la parce que ñoom àdduna du neex ba ñu ñëw. di la ñaan di la ñaan yow nag yaay joo ko comprendre te loolu après ça peut être terreau de frustration yooyu. surtout mm-hmm. que ay aji ngëm nañu am nañu ay feet yoo xam ne peut être dinañ ci ñëw sax après. waaw mais daal ma bëggoon fàttali rek ñi ñuy jiite. ne gars yi war nañu yaawil affaire yi tuuti Euh, bu ñu fàtte mukk ci li ñuy def. Mhm. muy euh, sénégalais comme ni ko El Hadj Mansour Mbaye daan waxee benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. Mhm. deuxièmement bu ñu fàttee mukk ni sénégalais Sénégal li ko téye dëgg dëgg dëgg mooy les solidarités agissantes. tout à fait euh, sénégalais dëgg mooy nit la koo xam ni kersaam jomaam fullaam. Mhm. Ah, ak dignitéem du koy gënal lu bare bare mhm. euh, et que ñi ñi jiite aussi ñu bàyyi ci xel euh, si les formes de solidarité yi ñu mës a xam mooy teraanga Sénégal euh, ça ne compromet pas Euh, ci li ñu jëm nii la rupture muy jub jubal jubbanti. Hmm. Euh, moi je pense que war nañ ci di taxawee quoi. du yàq dara ci jubbanti dara quoi. je hmm. pense que ren tabaski bi. Hmm. Euh, loolu rek moo manqué ko en fait mais sinon xar am na transport bi nit ñi dem nañu. mais ce sont les formes de solidarité agissantes moom moom manqué ba nga xam ne mhm. peut-être que fête bi lawul ci ci ñëpp quoi dinañ ci dikk bu baax a baax ma mhm. fàttali suñu mbokku téléspectateurs yi ne yéen ngi ci seen émission ak Actu Show ci Sunugal 24 ma ànd ceeg Siré euh, euh, Sy si euh, tey da nga ñëw ak guy gi de <laughs> waaw guy gi moom. foo ko jëlee ak. <laughs> waaw très bien guy gi waaw. ak <laughs> effectivement lan moo doon taxawaayam taxawaayam tout à fait xam nga guy gi. Mhm. moom lay tubaab di wax baaw baab baaw te dafa bokk sax ci sunu emblème euh, guy gi tey li tax ma indi ko mhm. mooy euh, ñun góor góorlu yi parti góor góorlu yi mhm. euh, dañoo fas yéene ndaxte de wolof nee na waaw góor baax na ci jàmbaar mhm. ñu fas yéene weer wu ne ñu xool ci gouvernement bi. Mhm. Euh, ministre bi ñu jàpp ni moo gën a taxaw. Mhm. ci jafe-jafe góorgóorlu yi. Mhm. ñu bëgg bëgg toujours nag li ñuy tuddee le ministre du mois. maanaam boo ko doon wax naan mooy ministre bi taal daay gi. weer bu ne ñu tànn benn ministre gu taal daay gi. maanaam taal daay gi mooy ministre bi nga xam ne il se sera le plus illustré. Mhm. ci gouvernement bi ci euh, yombalal. Mhm. Euh, taxawu euh, góorgóorlu yi. Mhm. te boo leen di wàññi nga war a tàmbali ci man mii góorgóorlu et donc bi ñu ko waxtaanee. ñu ni première trophée bi bi ñuy njëkk a joxe ci weeru juin bi ñu nekk nii. Euh, ñi ngi koy jox euh, ministre des transports El Malick Ndiaye. Ndiaye waaw moom la góorgóorlu yëpp daje. Mhm. Euh, réunion daal di ministre gi lal gi lakk <laughs> ci weeru juin bi. Euh, presque à l'unanimité ah ñu ni El Malick Ndiaye la lu tax El Malick Ndiaye. xanaa décision bi mu jël la. waaw décision bi mu jël la. décision bi mu jël la mu jël la. tabaski oh, oh. transporteurs yi taxaw. Uh-huh. yokk paas bi. absolument mu dem indi ay bus. waaw Siré nan nga jàngate décision boobu. waaw décision bi en fait euh, il a fait dans dans dans l'innovation politique en fait. c'est, c'est une décision bu def dans l'innovation politique. Mm-hmm. ndax euh, bus yàgg nay dem ci gox goxaat yi. Mm-hmm. cest que le principe que bus. Euh, dem dikk. xam nga bu njëkk ba dakaar dem dikk la. waaw léegi ñu dindi. dakaar bi def ko Sénégal dem dikk. Sénégal dem dikk. Mhm. léegi sax dem dikk la tudd tout court. Mhm. kon bus di jógee Ndakaaru di dem ci région yi loolu daan nay am. duguleet duguleet. Mhm. man mi euh, Fuuta laay jullee. Euh, yàgg na may jël dakaar dem dikk dem di julli ci. mais lan moo ci lan mooy originalité bi très bien lan moo ci originalité bi mm-hmm. mooy euh, d'abord ñu jël décision ni dañu koy lawal ci euh, région yëpp d'abord mm-hmm. quatorze régions yi première chose deuxième chose mooy bu njëkk ba bis bu daan dem daanul dépare boo maraîcher ñoom faneen lañ daan dépare mm-hmm. seeni terminus mais li am innovation dans la décision politique mooy dañoo ñëw ci garage bi au lieu que nit ñi dem di fekki bus yi léegi bus yi ñoo ñëw fekki nit ñi. Mhm. parce que boo maraîcher mooy garage ba ñuy demee. xam nga lu tax parce que en tant que góorgóorlu. Mhm. su ñu defee euh, fële euh, yeneen zones yi. Mhm. mën na ma coûter. Euh, taxi am na yenn zone yoo xam ni pour nga dem fa mën na fa accéder il faut mm. nécessairement nga jël taxi. or bu dee zone boo maraîcher yi mën nga jël transport euh, public bi. Mm-hmm. kon donc même 1000 francs yi ngay économiser rek bul ko xeeb maintenant deuxième chose. bi gën a am solo ci décision bi et je pense que sax looloo def unanimité mooy le fait que mu am l'intelligence dans la décision politique woo armée bi. Mm-hmm. réquisitionner armée xam nga lu tax. Mm. parce que à deux niveaux d'abord premier bi. dafay dundalaat benn concept boo xam ni dañu ko yàggoon a xam te mu xawoon de armée nation mhm. parce que l'armée a été toujours au cœur de la nation mhm. mais jamono yi passé dañu jàppoon ne armée moom il faut que tuuxi doon a am rek ñu doon a xam seen njariñ mhm. mais en temps de paix ci lay armée gën a am njariñ sax en temps de guerre la décision du ministre des transports El Malick dafa ñuy fàttali ni armée ci temps nekkul rek di évoluer ci temps militaire mais day évoluer ci temps civil mm. troisième aspect bi mooy de par décision boobu dafa casser prix yi hmm. ma jox la benn exemple man sama gars yi Ziguinchor hmm. bu du woon décision boobu ils allaient payer vingt cinq mille francs pour dem mais yow xam nga góor góorgóorlu bu mel ni man nga jóge fi di dem tabaski yow bu ñu fàqee ci yow vingt cinq mille mais boo demee lan ngay yóbbu te yow dalay leer ni boo demee daa fa bàyyi dara après daa nga préparer sa retour pour ñëw te pour nga ñibbisiwaat daa nga bàyyi dara ca kër ga. Mm-hmm. est-ce que comprendre kon donc tabaski dafa daan metti. Mm-hmm. loolu moo tax ñuy war a def ay solidarité parce que sénégalais yi nu ñu bindoo la lépp dañ ko concentré Dakar et donc màggal Touba ak tabaski mooy les deux plus grandes fêtes yoo xam ni nit ñi dañuy vidéo mm-hmm. Dakar se vide dem. léegi nag yow boo demee julli ji li lay war dafa bari d'abord yow la ngay yóbbu. waaw ca julli ga. Mm-hmm. xale ya njaboot ga. sa transport. Mm-hmm. soo demee la nga fay nekk te wala nga fay jóge daa fa bàyyi lu gars yi di dundee. Ah, après yow nga ñëwaat fii. Mm. kon donc bu ñu amul yenn te ñëpp xam nañu revenu ni muy demee. c' est là où c' est important les formes de solidarité. et ce que nga te foofu c' est important les formes de solidarité et donc euh, décision bi ministre des transports jël euh, dafa dëggal gouvernement bi ci benn logique boo xam ni gouvernement bi daf ko daf ko jël mhm. décision bi jëmmal ko mooy bu ngeen xoolee bi gouvernement bi ñëwee ba taxaw premier lobby bu mu defal en face c'était le lobby de la presse